Euh, su ma ñëwee ci làmb yi fi jot am parce que am na combat yoo xamante ni newoon nañ bokk na ci yi nga xamante ni mooy dekkal euh, saison bii ñu nekk mu ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé euh, noo gisee boobu combat. combat bu tar Modou Lo Ama Baldé. dina tar lool parce que Ama Baldé xam naa ne bu arbitre sifflé ci kaw Modou la jëm loolu moom bu ko kenn werante moom. day ñëw day ñëw mais man daal la fay fekk man mooy sama problème. <laughs> waaw la muy ci Modou la muy fekk ci Modou Lo te Modou Lo du ku nuy alañ alañee waaw loolu Balla Gaye rek la jik xaw ma nag nu mu koy def ba ba di ko def noonu mu koy def rek mais xam naa ne moom ñi koy attaqué ñëpp gis nga ni mu leen di def ak noo mën a toll boo am na waaw ay feemam yi muy def moo tax combat bii du yomba de du yomba ci Ama Balde loolu moom bu yeboo mu xam ko. ci côté Modou Lo nag. waaw Modou Lo moom mu bañ a naagu rek bu mu naagu lool te xam ne kii muy bëreel nii ah du gune gune gune gune caxañ caxañ ñe de waa am na lu mu gëm Ama Balde am na lu mu gëm te loolu mu ngi koy imposer te loolu moom na moytu moom mu imposer ko moom Modou Lo waaw bu ko imposer rek mën naa am lu ko metti Euh, su ma ñëwee ci Reug ak guy Gui parce que nekk na combat boo xam te ni combat bu bay coow la avant muy taxaw ak lu ne lu ne lu ne dégg nañ ko ci su ma ñëwee ci combat boobu lan nga may wax. ah Gouye Gui <laughs> Gouye Gui rek day tëdd rek day daanu. parce que bëri bi nekk ci Reug Reug nekkul ci guy gi waaw guy Reug Reug c'est dafa pare. Reug Reug boo ko fekkee fu muy entraîner pare moom jugul pour Gouye Gui parewul sax pour guy Gui. waaw parce que booy bi li muy entraîné yow man dama kay xool ba mu yàgg ma ne ko booy yow xanaa da ngay xaru parce que tellement booy bi dafa am lu mu gëm te loolu noonu da koy wax te da jëf ni mu koy waxee noonu la kay jëfe mais est yomb ci guy parce que guy gi ku ko xam ne dafa am détermination bu ñëwee ne lii laay def euh, nit mënu ci dara wala boog bu ci nit dee mën daal dina metti lool lool lool lool ci yow te combat bi li ko ko tax a jël bokk na ci waxu nit ñi wala boog te ko ragal da koo nangam da koo nangam ba mu fépp jëlal ko boppam est-ce que ni nga ko waxee noonu wala ngeen ko yaakaaree noonu est-ce que dina du yombee noonu parce que rek rek wax naa ko ko nee naa ko guy gi bu leen ko gis nii rek parce que ñi mu juumloo ñëpp comme li ngay wax nii loolu loolu lañ doon wax buñ ko fa fekkee dinañ ko def nangam ku mel ni Ama Balde. bu mu fi dajee guy gi loolu la loolu la demee woon rek parce que daanaka ja signature contrat ba mu yaakaar ne li am foofu mooy am fii mu ñëw gis leneen looloo ko jaaxal mu jële ci jële bu rëy rëg-rëg nag moom war naa xam loolu war naa xam loolu bu baax xam ne kii muy bëreel mën naa juumloo ku ne moo tax combat bi ne naa ko bu ko xeeb jël ko au sérieux loo doon def benn yokkal yokkal ba mat diis parce que guy gi fu kenn foogewul rek lay génne doonte bëree ba bariwul waaw moo tax ma ne jëlal combat bi au sérieux parce que guy gi tey toujours fa ngay fële mën naa bañ a feeñ foofu waaw kooku mooy guy gi. Hmm. su ma ñëwee ci Eumeu Sène ak euh, Lac de Guiers 2 Lac de ci ay série de victoire Eumeu Sène euh, nekk fi roi des arènes Modou Lo daan ko mu jóge fa ñoom ñaar seen combat dafa taxaw ak coow li tàmbali laale na ñaareel bi may troisième fois bi yaakaar xanaa mooy nekk tàqalikoo bi. waaw combat boobu man su ma doon Lac de Guiers man maay wane li tax Eumeu Sène mii ne waa Eumeu Sène mii li ma yebee lan la. <laughs> su ma doon Lac de man. dama naan man Eumeu Sène mii ma yebee ba ba saabu njëkk ren ka ko jox seen combat bu njëkk ba. koroog yuuxu it ak tàccu yi ci Eumeu Sène la ëppee. donte victoire amul deuxième combat bi arbitre sifflé am seen na coppe tànk bu dëcc mu toog waa léegi loolu bu doon man man man maay jëlal sama bopp combat bi au sérieux ne kii fu mu taxaw dinaa ko fa fekk dinaa ko duma dinaa ko daan comme Khadim Ndiaye Salloo waaw man boo ma daanee daanaat ma troisième fois ba man maay jëlal sama bopp combat bi Lac de Guiers du ku ñuy conseiller dinaa Eumeu Sène lii wala Eumeu Sène lële moom moo war a jël décision boppam moom ne Eumeu Sène mii tey dinaa bëreeg moom dinaa ko duma dinaa ko daan tant que attaqué wul Eumeu jàpp bëreek moom lu mu bëgg ci moom du ko am. mais bul fàtte ne seen daan na ko ñaari yoon waaye Eumeu Sène tam ci defet ba mu jógee suur na lool mu jotoon a def lépp. waaw moom bu xool yooyu yëpp bu doon may lak degeer man du xool loolu yëpp. jugeel ci sans défaite man li ma li nga xamante ni moo amoon suñu diggante loolu laay rek jéem a réparé waaw. Eumeu Sène nag xam naa ne du ko mayaat loolu lamu mu ñam mu neex moom du ko bàyyi waaw xam naa da ka cay da ka cay delloo rek waaw. lak de Guiers nag moo war a bañ loolu bu arbitre sifflé mu jël ay propre jël décision boppam ne lii laay def. mais doo taxaw rek di léewaatoo ñu lay dóor ngay daw ak yéegi saakook yooyu tànk mu ngi ci boppam ak digganteem ak Eumeu Sène li mu bëgg ci moom du ko am waaw moom mooy jël di décision boppam ne lii laay def Eumeu Sène naka def mu xool bu ko defee yàlla dina ko ci defal ndab mais tànk mu ngi bàyyi xel Eumeu Sène du ko daan lii moom maa la wax lii.